Mor Mbaye Mbengue maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu bu baax soxna Ndeye Comba. voilà Mor mbay Mbengue nga nekk coordonnateur euh, collectif taxawu Kayar nekk coordonnateur bu conseil local euh, de pêche artisanale ñu lay laaj euh, naka la kuréel gi juddoo di taxawu Kayar ngir xeex implantation bu usine bu farine ak tamit bu diwlin bu poisson foofule ca Kayar. waaw li tax li tax collectif bi juddoo mooy ñun dañu yàlla dafa dogal ñu bokk. bokk ci ay organisation professionnelle yàlla defal nu tamit xéwalu ñu dem def ay visite de sens ci usine farine de poisson di am bien avant ay usine farine de poisson di ñëw Kayar ñu dem Mauritanie fa usine am dem Gambie fa usine am mais dem Joal gi nga xamante ne moo ñu jigee aussi gën a jigee aussi fi usine am gis usines yi impact yi muy impacté ci population yi nga xamante ne ñoo dëkk ak moom moo tax bi ñu amee information ni maire bi fi nekkoon dafa jël suufam mu jaay ka benn promoteur mu def fa usine farine de ñu daje def collectif mais non loolu moom du mën na ne parce que euh, maire bi fi mu ko jaay dèjà ab ab la boo xamante ne mille cent vingt quatre parcelles ñoo fa nekk yoo xam ne ay nit ñoo borom kër ñoo fa ami kër waroon fa dëkk ci am na ñu fa tabax ba dëkk. am na ñoo xam ne aussi ñu ngi commencé doon tabax mais bi usine démarré ba léegi ñooñu dañoo arrêté ñu gis ne nag loolu injuste la parce que benn li ci gën a garaaw mooy tey jii bi usine bi def euh, audience publique am Kayar vingt cinq mille habitants vingt six mille habitants la am population ñu def audience publique benn salle de réunion boobu noonu bi ñu yëgee audience publique bi dañoo forcé ñu di salle bi pour dire non fekk na booba ñoom choisir nañ seen i agenda politique am pour yombal li nga xamante ne si moom mooy dugal euh, li nga xamante ne si moom mooy usine bi Kayar euh, ñun nag si booba te la ñuy commencé constitué wu en collectif dem bind lettre yóbbu ci autorité yëpp def de presse pour alerter population yi xamal leen li nga xamante ne si moom mooy usine de farine de poisson parce que Kayar xamuñu lan mooy usine farine de poisson euh, ñun ñi nga xamoon si booba jamono. ñu gis ni kat dafa ñu jugeen CSN dañoo war a informer ci lan mooy usine de farine de poisson ba ñu ko defee itam am ñoo ñun suñ lan mooy suñu taxawaay ci dëkk bi parce que ñu njëkk a def lépp lu gis ni lii wóor la am rek dañu jóg taxaw loolu mën a ñu teel a comprendre ñenn ñi ñu fekk suñu ñu bind ay lettre yóbbu yëpp même ministre de la dafa ñëw koy ar def fii audience ak waa Kayar fan bu fekkee de sax gis population yi bëgguñu usine bi moom itam mu joxee accord kii am engagement am ne du ko jox licence mais bi Alioune Ndoye ñëwee actuel ministre de la pêche bi mu ñëwee ñun tamit ñu dem seeti ji waxaat que la même chose mais biñ ko ko waxee moom dafa mel ni ci saa la nga xamal ne moom du ko du joxe la ñu gëmloon woon du joxe ba pare wax nañu tamit ni mi ngi subir pression bu diis ci li nga xamante ne bi moom mooy euh, ña a joxe licence usine boobu noonu mais ginnaaw bi ñu gis joxe na licence kon liy firnde mooy pression ba mu doon subir moom moo tax mu joxe licence boobu noonu beneen bi ci des muy gouverneur de préfet sous préfet la gendarmerie la mairie euh, le service départemental des régional des presse acteurs de la maanaam tous les autorités administratives yi nga xam ñoo nekk ci ci euh, région bi dem nañ ci ñoom yóbbu leen suñu lettre clamé aussi def ay point de presse pour attirer attention opinion euh, publique nationale ak internationale bi li nga xamante ne mooy Guet Kayar li xew nag mooy usine bi tàkk na fi mu nekk nii te population Kayar yëpp ni mooy ñi ñuy commencé subir mooy ay ndox yu bon usine dégagé mooy ay xeet yu bon yu usine di dégagé mooy parce que ñun ñun wax gestion de la ressource que tey jii boo soo waxee gestion de la ressource au niveau national ñu wax la le cas de Kayar mais Kayar fu mu nekk nii commencé am problème kenn mus ko fee ñu ne muy jëlu sew kenn mus kaa ñu ne napp Kayar mais bi usine di implanté wax fi ne bi ngi di napp jëlu sew te réew soo bëggee réew ma gént demal nga rey ndaw ña boo reyee ndaw ña boo liggéey dootoo amee xale loolu tey bu ñu koy jàpp jëlu service di ka di ka rey di ko yóbbu usine farine de bu ko est ce que géej gi dina am jën parce que jën woo xamante judd na màggagul ba juragul reproduire ñu commencé kaa rey di ko yóbbu farine de te loolu am na ñu teg ci suñu bët beneen bi ci des mooy tey ji dañoo gëm ni ñun li nga xamante ne mooy implantation farine de poisson xoolal c'est de transformation des femmes euh, de Kayar lu ëpp trois cent femmes ñoo fa boo demee la fa ne matul ñëpp bàyyi nañ liggéey bi ndax lan moo tax ñoo jot produit bi ndax concurrence bi nga xamante fii farine de poisson mi ngi leen ko concurré te ñoom di dem yóbbu di yóbbu foofu a am jën te ku na xam ne jën lan lay jariñ la ñuy jàppale suñu protéine besoin en protéine animale ci suñu wér ay mala ci ba pare ci bitim réew jël suuf jël suñu jëlu réew ñu ne war a dundee ñun dem jox ko ay mala ya bitim réew ba dëretul ñu ba pare ñu ne polluer ci xet gu bon ñu ne polluer day yi kayaar boo demee nag maawaan dafa bokk ci histoire Sénégal rang maawan bokk ci ñi nga xamante ne tey jii mooy dimbali baykat yi kayaar yi nii ci pomme de terre bi ñuy produire ak ak légumes yi ñuy produire ba ñëpp naan légume légumu kayaar naan pomme de terre kayaar mais aussi mooy jàppale ñi nga xamante ne sàmm yi seen nag yi fa la ñuy naan mais aussi moom mooy jàppale kayaar forage bi mu am nga xam ne moo koy fournir en eau potable forage boobu tey jii ni mën nañu ni ndox ma nga xamante ni moom moo fay génne kenn mënut ugaan naan ndax lan xam jamee kañ comme fosse septique ndax lan usine ay ndoxam yi dem di ko tuur ci biir lan lan daan boobu noonu tey ku fa dem même boo dee étranger nga ñëw teg si sa bët yow moo kayaar boobu kër goo fi yenn bu la mayee ndox doo naan mu dem a dem ba léegi suñu dépense quotidien léegi fii day yokk ndax lan ku joxe dépense bi nga joxe njëgu ndox dem jëndi ndox si boutique bi dem jëndi ay ay ay kii nag ay crème façon ndox yooy noonu ngir ñu ñi di nga naan ngir ngir mën a mën mën a survivre est-ce que loolu normal benn intérêt nit ñëw privé population lu mu xañ leen ni ngeen da doon bu njëkk effectivement dañu doon bas yaa ñu doon diis tey jii population Kayar yëpp adhéré nañ parce xam nañ liñ leen doon wax mi ngi nii te dem a def sensibilisation te bañ ba mu ba ba moom moo tàkk di a dund moom mais moom si laaj bi ba ba waa Kayar mu naan mais jigéen ñi tamit amatul luñ liggéey beneen bi mooy ay financement yu jigéen jigéen ñi te li ñu waraloon Kayar bi ba pare àggale si mooy dafa woon day euh, employé huit cent femmes huit cent huit cent personnes te li mu employé mu dul vingt personnes dafa waxoon ne day financé euh, femmes yi à hauteur de cent millions. lam joxu leen benn dërëm dafa waxoon day day day day day day financé pêcheurs yi ay matériel de pêche joxu leen dara ak yeneen yeneen wax ne tabax hôpital deux cent millions dem leen xool lam fa tabax ndax mën na vingt millions maanaam mel ni kuy def escroc ci ci population Kayar dama dem ba parce que collectivité locale bi nañu bàyyi xel ni ñoom dañoo àndoon ak moom ci li doon def te tey jii wan nañ ko ginnaaw parce que boo gisee suñu sortie bi passé daanaka ñi ko dirigé woon c'est leen dugal leen kaso bi naan dañ doon cambrioler usine bi euh, bon jël fa benn su xaw ma deux cent vingt cinq mille francs ci teg teg ñenn jàpp ki si gën a néew responsabilité entreprise bi mu bi mu bi mu bi mu liggéey muy tool yi doon gérer seet seet valeur bi boo ko estimé ëpp na vingt kuy liggéey lépp vingt millions nga koy jënd cambriolage deux cent deux cent vingt cinq mille dugal ko ci kaso xam na ni mu def parce que xam na ni ah, ah, ñooñu mu jël noonu mais am na ñu leen ëpp taxawaay ci usine bi mais ñu ngi dëkk biir Kayar muy ñi nga xam ñoom la seen maam sañcoon dëkk bi te man nii ma bokk ci ñooñu lan moo tax laalul ñooñu xam na bu leen laaloon ba léegi waaye dootu waaye jeex na mu dem jël ñi bon population lañ yoo xamante ni bon peut-être quartier yi nit beneen bi des mooy ñoom ay ñu fi ñëw sañ si dëkk si leen mais fi mu tànn si si kaso. war a am ku ku mën ak ku mais si naka la usine bi di impacté wérgu yaram bi parce que bi ñu implanté usine bi dafa am feebar yu bees yoo xam ne askan wi dañ koo am wala dafa am feebar yoo xam ni mën ngeen wax ni réellement euh, usine ba nekk ca Kayar moo tax askan wi am ko. waaw dama lay wax benn affaire dégg ngeen fi ñu naan phénomène da am Kayar benn maladie mystérieuse de Kayar waa lan moo tax ñun depuis année bi choléra année Sénégal lan nga gis feebar bu mel ni bi fi amoon keroog bi fi amoon daaw ñu ñu moom mu jóg ci saa feebar bi am na mu gaawal dem hôpital yëkkati cinq cent mille joxe fa ni moom lañ ci dimbali malade ndax feebar bi si KDPES bi la bi mu ngi fi depuis deux mille depuis mille neuf cent quatre mel noonu moom implanté fi bi mu démarré léegi matugul matugul deux ans feebar yi mel na lu ñu ko teggal hypertension bi demal hôpital ba nga laaj hypertension bari na euh, fa feebar wàcc bari na fa feebar biir yu daw Euh, ñi nga xam ne dañoo am ay ay asthme mënut ñëw nag am na sama benn jigéen bu ne fii si tey nee doomam yi pour ñu nelaw day dee di jox ay comprimé ñu naan ndax lan ay asthmatique lañ tey soo demee ñi nga xamante ne si ñoom ñoom am koo xamante ne tamit doom ndeysaan élève la woon boo a jàng nekkoon meilleur élève si ci lycée bi tey jii nii dafa génn doom doon voyage ànd ak yaayam dem ba foofu xeetu usine bi dugg ko mu commencé wàcc boobu ba léegi kenn mënu kaa faj muy boobu ba léegi a maanaam mu mën la wér wa nekk léegi léegi ni ma kooku ñàkk na ma ko wet ndax lan papaam dem na ba jeexal te papaam pêcheur na amul doole li mu doon góorgóor di dem géej talatu la dem géej tey jii bis bu ne mi ngi ànd ak yaayam fu la ñu dugg di di di di di di seen i mbokk di leen jàppale pour faj xale bi amul benn autorité sax boo xamante ne ñëw na xool li ñuy dund lu mu doon à part le sous-préfet may gërëm bu baax la nouveau sous-préfet de de de du département de Kër Moussa de kii de l'arrondissement de Kër Moussa parce que keroog ba ñu fa demee waxtaan li nga xam ne moom moom moom autorité la dafa def autorité dafa jóg ñëw xoolal boppam lan moo xew. te gouverneur ministre de la pêche bu dul ministre euh, euh, Omar Gueye bi fi nekkee boo commencé ci ministre bi ba gën a nii wàcc ci autorité yi sous-préfet boobu kese moom lañ fi dem ci moom mu jóg def déplacement pour ñëw constater liñ ko doon wax. ñu lay gërëm au passage tey mel ni Sénégal léegi ñoom tegu leen te ñoom autorité yooyu li war a bàyyi xel mooy Sénégal ay ñoom ñoo leen di fay la ñuy dundee dégg seen njaboot suñu amee problème kalaame leen dañoo ñëw wàcc si ab tamit xool li ñuy dund lu mu doon mais duñ toog seen i bureau climatisé di signé loo xamante dañuy lor ñi jigéen ñaa ngi feebar su nekk nii wóor na yàlla boo demee hôpital bi euh, jigéen ñi nga xamante ñoo nekk euh, di ëmb yu demee noonu coono yi ne jànkoonteel kenn nit la kaa wax su nekk nii te loolu mosu fay am. léegi samedi bi amul bi organiser ngeen marche pour ñaawlu loolu euh, lan moo war moo nekkaat seen plan d'action ci fan yi di ñëw pour ñu tëj. usine bi nga xamante ni da ngeen a bëgg ñu tëj ko di usine bi nekk foofu la ca Kayar di defar farine ak huile de poisson. li nekk suñu suñu bëgg mooy d'abord marche bi ñun dañ ko doon def parce que ginnaaw bi ñu def ay point de presse def ay pétition affaire bi kalaame ay lettre kilifa yu te nag ñu nag ñun di wane toujours suñu mer ñu ñu dem def marche dem ba ca boori usine ba defal suñu déclaration pour alerter autorité yi mais à part marche moom ñun dañuy saisir la justice te am nañ yaakaar ci suñu justice réew ñu ñoom dinañ ni seeni matuwaay mais dañ leen kalaame ngir ñu def liggéey bi ngir usine bi ñu def parce que code de l' environnement moom moo garantiral ni ñun mën nañoo dund ci environnement l' environnement joxewul euh, dogal seen i usine di man ma ko waxee de bokkuma ci ñi gëm étude impact environnemental ci Sénégal gi bi parce que étude impact environnemental ci Sénégal li ci ëpp ay ay ay la li ci ëpp du du jaar yoon parce que kan moo mën a dem ba jaww nga dem ba nekk diplômé ci environnement ñu defar loolu ak étude impact environnemental nga ñëw usine boo xam dañ caa impliqué dans zone sud de lotissement yow nga joxe avis favorable ci loolu ni ñi ñi yow da nga da nga da nga li nga def franchise nga ko defee du dëgg beneen bi seen mooy ginnaaw bu ñu demee saisir justice ne liñ ba mooy justice def liggéey parce que yaar leen mën a xam mooy benn affaire dañuy naqar ñu kalaami kilifa yi fajunu ko population bi jóg seen fajal ko seen bopp ñun nag dañoo nekk ay républicain doon ay patriote doon aussi ay légaliste ñi nañu utiliser yoon pour yoon def liggéeyam mais bu ñu demee ba ñun ñi tey jii ñu dem di dox yoon yoon joxuñu dëkk joxuñu li nga xamante ne bi maanaam yoon deful yoon maanaam bu deful yoon dañuy bàyyi population bi ñu dem fajal ko seen bopp parce que ñun nit boo ko naree rey na yaa yaa def li tax mu song la te bu jël bu jël nit moom bu fi jógulee moom dina fi jógee ci A nii A mooy dans les voies légales wala mu jógee dans les voies illégales parce que duñ ko bàyyi mu rey ñu de. est-ce que wax ngeen si. waaw dem na ba fi nekk gis nga boo fi ñëwee si population suñu mbaar bu mag mi nga xam ne si la notable Kayar doon toog diggante daaw ak ren daanaka benn pas de réseau ñoom ñëpp dee nañu. ndax usine bi. est-ce que autorité yi est-ce que njiitu réew mi yëg na lii est-ce que ñi autorité yi ko war a yëg yëpp euh, yëg nañ ko waaw. dama ne autorité yëpp yëg nañ ko le vingt six le le le mois de juillet bii passé. Euh, mardi bi mujj avant élection yi man bokk naa si délégation président de la république recevoir muy acteur la pêche yi mais keroog bi ñuy wax ci ci usine de poisson yi ne ci réew bi d'une manière globale lañ doon wax dañ doon wax usine farine de poisson di wax euh, dégâts yi ñuy def mais buñ tuddee affaire xet président de la république moo ni le cas de Kayar le président moom moom moom renseignement généraux yi jox nañ ngi xeeñ mais lan moo tax mënuñu jël ay responsabilité ñu jële fi usine bi na dañuy bàyyee ba population yi jóg bon ñu jàpp ñuy dugal fi gis nga Kayar lii ñu nekk nii di dund nii bombe retardement lu mu yàgg yàgg day explose bu fekkee ne autorité lu ñoo jël seen ressource su fekkee nag réew mi bëgg muy tàkk bis bi yàlla la problème yi mu da may voyagé ba jëm foofu noonu bu ma exige éducable di laa ay nooy ba keroog may da ngaa da ngaa xam moom mu ko def da ngay mi ngi lay jaajëfal. Hmm, maa ngi lay jaajëfal bu baax man maa leen war a jaajëfal yéen ñi nga xam opportunité am wax li nga xamante si moom nekk di dund. voilà may fàttali yow yaay coordonnateur bu collectif taxawu Kayar nekk tamit coordonnateur bu conseil local de pêche artisanale.